ñu ngi am mbégte dalal ci matinalu tey bi euh, Abdou Khafor Touré bokk ci task force républicaine euh, bu euh, benn bokk yaakaar nekk itam njiital SYGIS SA ñu ngi lay nuyu dalal ak jàmm Abdou Khafor Touré. maa lay fay bu baax soxna Fatou Thiam Ngom di am mbégte toujours nekk sa invité di nuyu mbooleem déglukatu réew mi FM di góor di jigéen. alors ñuy tàmbalee naturellement ak élection locale yi ñu weesu résultat yi ñu bari jàpp ne euh, da ngeen si ñàkk yéen tamit ngeen gis ne euh, ndam ngeen ci jëlee lan la ñu mun a jàpp véritablement euh, pour benn Bokk Yaakaar si élection yi. waa jërëjëf xam nga li ñu jàpp coow li bari na Sénégal xam nga Sénégal dafa am ñuy woote seen bopp kàngam ay analyste wax ci affaire élection waxu politique te xamuñu ci dara élection boo amee tendance yi ak li xew mënoo ko xam ci ëllëg élection ba. wala mënoo tirer li tubaab di wax enseignement global ci bu ñu élection ci suba gi élection foog nga xaar résultat yi génn nga xool nga analyser si réew mi yëpp ni élection yi demee waaye lu élection bi joxe résultat élection yi mooy ñun benn Bokk Yaakaar gagné nañ juróom benn euh, gagné nañ euh, fanweer ak juróom ñaar ci ay ci Sénégal opposition bi gagné juróom département euh, ñun gagné nañ juróomi téeméer gox goxaat Sénégal juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom benn gox goxaat la juróomi téeméer yi ñoo gañe lopp juróomi téeméer donc boo jëlee yeew yi li coow li di bari yëpp liñ gañe ci Sénégal ëppul ñeent fukki gox goxaat waaw léegi ñu ko gañee ñe fukk gox goxaat yow nga gañe juróomi téeméer ñu ne kooku moo la gañe mais est-ce que du yu ëpp solo lañ jël moo tax xam nga localité yëpp ñoo ñoo tolloo dignité li am mooy boo xoolee bu doon élection législative yow tey bu résultat yi nekkoon élection législative kenn du ko waxati dafa sa danañ am téeméer ak ñaar fukk député su doon élection présidentielle la président bi jàll na premier tour waa foofu gañaay am ci opposition bi bu fekkoon ni élection législative la kenn waxatu ko majorité bu confortable la ñu am assemblée bu doon élection présidentielle président bi jàll na premier tour am mooy élection bu nekk ak nam bindoo lii élection locale la woon ci élection locale yi bennoo c'est vrai def na ay effort yu mag am na localité yoo xam ne mosu koo gañe gañe na ko am na localité yoo xam ne mosu koo gañe daf ko bëggoon gañe gañewu ko li am dëgg mooy bennoo conforté na majorité moo majoritaire ci dëkk bi ba léegi mais li am solo mooy euh, opposition bi def na percé parce que opposition bi nangu nañ Thiès loolu lu bees la donte 2014 sax élection locale Thiès opposition la voté donc Thiès 2014 ak 2022 yëpp opposition la voté donc ñoom opposition lañ voté euh, département de Mbacké opposition lañ voté 2014 ak 2022 donc dara soppeeku ko Ziguinchor opposition lañ voté 2014 2022 donc dara soppeewu ko yaa ngi dégg. Mhm. bëggoon nañ ko gagné gagné wuñ ko. Dakar 2014 opposition la voté opposition la voté 2022 donc dara soppeeku fa tamit euh, euh, Rufisque opposition la voté 2014 opposition la voté 2022 donc dara soppeeku fa. Mhm. donc li soppeeku peut-être mooy Guédiawaye xanaa peut-être lañ ñu mën a wax euh, bi ñu gagné woon 2014 te ñàkk ko. ak département Kër Massar bu bees bi nga xam ni c'est la première fois ñu fay def élection ñu ñàkk ko loolu nag ay réalité la loolu lu muy firnde mooy opposition bi def na percée bu mag ci gox goxaat yi nga xam ne nii ñoo nekk ci centre urbain yi percée boobu tekkiwul ne am na yéen tam fu ngeen daanoo. non da ngay koy ñun am na non delluwuñu gannaaw parce que boo xoolee en terme de suffrage yi ñu amoon 2014 ak 2022 nañ bu baax a baax a baax de presque un tiers euh, base régime bi mu ngi yaatu ñi votel Macky Sall ñu ngi yaatu non perte boobu dafa am gis nga boo demee capital yu bari ci àdduna muy Paris muy yu bari Londres muy bari souvent opposition moo koy jiitu loolu koy jiite loolu day am te fii tamit loolu moo fi am. mais lu tax Dakar te leen yéen particulièrement ak euh, ni ngeen ci miser campagne bi problème mu candidat la wala problème mu lan la. lu tax Dakar te candidat la nga Dakar même s'il un peu l'unité moo amoon ay benn ñaar liste parallèle hmm. euh, Dakar euh, li amoon solo mooy. am na donnée boo xam ne ni jëluñu ko en compte mooy dakaar depuis 2014 depuis 2009 opposition moo ko yor. Hmm. maire ville bi opposition la. maire commune yi opposition la. Khalifa Sall moo fi nekkoon ak ay mairam Khalifa Sall ni mu fi nekkee ak ay mairam mooy permettre que euh, loolu dafay wane ni ñoom am nañ encrage c'est une vérité. aujourd'hui il est incontestable que Khalifa Sall a un ancrage au niveau de Dakar et loolu euh, dix ans quinze ans foo toog yor ay collectivité locale loolu dafa am lu lay jox euh, loolu moo tax ci Dakar ci élection locale euh, mu jafe parce que maire yi fi nekk ay maire yu taxaw lañ yu toog lañ am benn mandat ñaari mandat maire bo am benn mandat ñaari mandat nga sempi dafay xaw a jafe loolu mooy difficulté bi Dakar soo demee Rufisque je pense que Thiès Rufisque Kaolack division bi la Thiès Rufisque Kaolack division bi la Dakar je pense que c'est l'ancrage local Thiès Rufisque Kaolack division bi man loolu laa gis comme explication euh, Ziguinchor mosuñu votel Macky Sall. Ablaye Balde moo ko yoroon. moo ko yoroon bala muy ñëw ci yéen. waaw même bi ñoo na opposition lañ voté 2014. donc les lectures il faut bien lire les choses. nit ñi dañu liirul élection yi bu baax a baax a baax. d'accord alors élection yi dina am njeexital effectivement ci euh, gouvernement bi waaj a ñëw ndax premier ministre léegi ñu tabb ko changer peut-être yenn ministres yi yaa ngi xaar président dàq ñi ñàkk ñëpp wala dina muñal ñeen ñi. non loolu noonu moom dàq ñëpp mënul nekk. Hmm. ñi ñàkk ñëpp mënuñu leen dàq. Euh, mais euh, je pense que composition gouvernement nomination premier ministre euh, président. moom moo xam ci yenn critère la koy nommé kooku pa dafa nekk pouvoir discrétionnaire du président de la république euh, même si élection lañu jëm lañ jóge euh, mënuloo ne ñi dàq parce que analyse danga koy analyser parce que am na ñoo xam ne nii mën nañoo perte alors que perte bi ñu perte defal nañ parti bi wala coalition bi poussé bu mag. kooku mënoo ne dafa perte parce que par exemple ku nekkoon ñëwoon di jakaar kooku gañewul woon dafa bëgg a gañe mais bu fekkee ne Dakar bi passé dañoo def mille voix moom mu ñëw def 9000 voix kooku même bu ñàkkee am na liggéey bu politique bu am solo bu mu def kon kooku mënoo ko jël sànni ko parce que kooku da nga koy encouragé. mu dem donc ça veut pas dire ñi perte ñëpp dama leen di daax non mënul nekk mais l' essentiel est que euh, li ñu war a souhaité rek man awma lu may xaar si gouvernement bi mooy président moo xam ne sénégalais yi. Euh, am bëgg nañ gouvernement bu gën a taxaw gouvernement bu gën a nekk seen wet euh, gouvernement bu méngook li ñu bëgg méngook ñoom et loolu mu taxaw euh, tànn nit ñoo xam ne nii danañ ànd ak moom xeex taxaw nañ am nañ taxawaay pour xeex. pour liggéey xeex pour ndóol sénégalais yi xeex pour améliorer condition sénégalais yi loolu moo am solo. ñu ngi jëm si yeneen élection est-ce que yaakaaroo ne bu ngeen juumee ci euh, ni ngeen di jàngatee local yi ñu génn mënu leen indil mbetteel ci yeneen euh, élection yi par exemple législative yi di ñëw est-ce que jàppoo ne xëy na euh, am na nu ngeen ciy demee. ak yaakaar bu ëpp mënu ngeen a am changement yu ñu rek. il faut ñu indi ay changement waxaat ak sénégalais yi gën a rassurer sénégalais yi fi ñu gañee ñu gën a conforter suñu majorité fi ñu gagné fi ñu gagné euh, ñu defaraat suñu suñu ngemb mais je pense que tey nii configuration bi ñu nekk nii bu ñu demee élection législative si la même configuration se reproduit ñooy gagné. ñooy gagné loolu amul benn amul benn euh, xel ñaar ñooy gagné bu ñu demee élection législative. donc ça y a pas de crainte aujourd'hui vraiment le Benno est encore majoritaire on va aux élections législatives dañ leen di gagner. présidentielle bi tamit euh, jàpp nañu ne élection locale yi réglé na question troisième mandat ni ko moom euh, Mahmoud Saleh waxee woon euh, su ngeen ci lajjee xëy na mën ngeen a delloo lenge yi jàppoo ne itam boobu problème réglé na. suñu suñu mag Mahmoud moo wax loolu rek position am la mais élection locale yi réglé wul dara. parce que nu mu ko réglé man affaire mandat man parce que gisuma ko parce que bennoo majoritaire na sur 37 commune sur 36 département bennoo am na plus de 50 pour cent de l'électorat donc le problème n'est pas à ce niveau je pense que affaire mandat bi ko di dis mot d'ordre bi président waxoon ci loolu laa nekk bu jotee dina ci wax te jàpp naa ni Macky Sall du def fii dara loo xam ne nii constitution Sénégal mayu ko ko wala démocratie mayu ko ko parce que gëm naa ni gëm na démocratie te xam na sénégalais yi te dina déglu sénégalais yi te dina def lu méngoog li sénégalais yi di xaar ci moom donc loolu cëram la nañ ko bàyyee ba mu jot mu wax ci. local yi ban jàngat nga jàpp ni. moom la ci majorité bi notamment war a def. je veux dire fi ñu ñàkk mun nañ lu ci bari désunion moo tax ñu ñàkk ko ñàkk booloo ñàkk ànd ñàkk nekk benn donc loolu il faut ñu liggéey ci organisation parti il faut ñu liggéey ci. discipline militant yi il faut ñu gën ci liggéey parce que c'est important parce que parti aussi il faut nit ñi discipliner boo gisee Thiès euh, Kaolack Rufisque ñu ñàkku ko indiscipline la <coughs> donc war nañ liggéey ci discipline u parti bi jàpp naa ni loolu war nañu renforcer cohésion bi ak discipline bi mais li ci localité yu ñàkk suñu renforcer cohésion unité discipline affaire dina yomb. Hmm. waaw tamit su weesoo ancrage opposition bi ngay wax euh, est-ce que waru leen dem au-delà xool seen jafe-jafe lan moo tax ngeen ñàkk gox yu mel ni par exemple Guédiawaye rakku président nekkoon fa foofu quand même mënuñu wax ne indiscipline la wala désunion donc ça veut dire que opposition bi mu ngi ci seeni tànk. est-ce que waru leen def sérieusement wala ngeen xool peut-être si fan ngeen lajjee ci wàllu yorin wi ndax am na ñu jàpp ne sax sénégalais yi régime président Sall lañ sanctionné mais pas les maires non <coughs> loolu gars yi dañuy wax rek duñ ah. ko sanctionné boo demee Guédiawaye am na mairie yu ñu gagné gagné nañ ñetti mairie si juróom lu tax ñu sanctionné fii sanctionné wu ñu fe donc analyse bi du président président yoonam nekkul si élection yi Dakar li ma la wax moo si nekk Dakar président moo ko gagné législative yi 2017 ah Dakar président moo ko gagné élection présidentielle yaa ngi dégg Dakar président moo ko perte élection locale partem 2014 ak 2022 donc boo gisee ni ngay gagné élection nationale di perte élection locale mooy li ma la wax. dañu am c'est local local c'est local. les Dakarois votent l'opposition aux élections locales aux élections nationales ils votent le président man de loolu laa gis ci élection yi lu ma analyser fukki at yi li fi am. kon daal tiitu leen ci élection yi ngeen jëm législative yi aussi yaakaar nga ne dina am est-ce que du ngeen xaw a xool nu ngeen koy pousser pour gën a dëgëral taxawaay bi amul taxawaay bi suñu taxawaay dëgër na këcc këcc këcc këcc këcc ba fii may taxaw nii di wax ak yow élection yi day am waaw <coughs> naa jege na mun na am ay problèmes techniques et tout ça organisation parce que on est à cinq mois de l'élection mais ba fi may wax ak yow nii option dàq élection nekk fi lu mën a nekk la mais nekku fi fi mu toll nii man dama gëm ni dañu war a def tout pour tenir élection yi à date échue laa gëm man. ci sa xalaat lan moo waral euh, opposition bi tey di avancé parce que tamit bu ngeen gagné it nangu nga ne ñoom euh, quand am nañu percée bu ñu def. am nañu percée bu mag bu ñu def ci grand centre urbain yi mooy ci dëkk yu mag yi mooy dakaar euh, Rufisque un peu la ville de Guédiawaye la ville de Thiès loolu nag boo amee da nga koy jàngat. ngay jàngat parce que euh, loolu c'est une forte enseignement la ci élection perce que am na opposition ci centre urbain yi dans les collectivités locales lu ko waral mooy euh, euh, peut-être difficulté économique yi ci Covid lañ jógee am na yenn njëg yu yokk yi cherté loyer bi yenn conditions difficiles yi loolu day tax indi vote au profit de l'opposition donc il faut que loolu aussi enseignement la bu ñu war a tirer pour gën a taxaw population yi pour alléger euh, un peu les conditions euh, seen condition de vie mu gën a yomb et loolu je pense que c'est un message on doit faire plus pour les centres urbains parce que Euh, si se sont exprimés contre le pouvoir euh, mënoo bàyyi noonu rek mu jàll même si le reste du pays est largement euh, Euh, majoritaire parce que percée boobu foog ñu ne ko c'est notre principal défi freiner cette percée de l'opposition dans les centres urbains balaa ñuy dem ci législative yi ak ci. présidentielle présidentielle. jërëjëf Abdou Khafor Touré ah, amoon nañu mbégte dalal la jërëjëf soxna Fatou ah, maa ngi am mbégte toujours dajeeg yow nekk seen invité di la remercier bu baax a baax di jégalu nag auditeurs yi. Euh, ci voix voix bu xaw a enrhumé bi ak saqat bi dégg rek. <laughs> Ah, merci loolu coono élection bi rek boo ko waral. <laughs> campagne bi wàcc bi <laughs> kon Abdou Khafor Touré lañ doon dalal mu bokk ci euh, task force républicaine nekk itam njiital CGIS euh, SA.